waaw xam nga màggal gi moom damay wax ni comme li ma ko wax sànq ndam lu rëy la ci képp koo xam ni jullit nga waaye ndam lu rëy la ci képp koo xam ni der bu ñuul nga mooy dox ci sa yaram donte islaam moom xamul der ndax islam xamul der lu tax ma wax loolu parce que ki waral màggal gi di Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul képp ku jàng diine wala nga mën a maîtriser langue arabe kenn warulaa jàngal dundam yaa war a am yitte dem jàng ko hmm. parce que Serigne Touba dafa bind biographie am fi mu jaar yëpp mu bind ko bàyyi fi fi mu jaar tubaab bi mu bind ko bàyyi fi hmm. digganteem ak yonent bi li ci ëpp hmm. mu bind ko bàyyi ko fi li tax mag ñi daan bind mooy dañ daan bañ ku falsifier seeni wax dañ daan bañ ku ku leen waxal lu ñu waxul moo tax ñu daan bind Serigne Touba moomu nag di Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul biñ ko laajee yow yaay kan Serigne Touba dane abdan lillahi man cheikhul xadim jaamub yàlla la abdan lillahi mu tagaat ci ni wax xadiman li rasulihi li may ñaan yàlla defal ma ko mooy dama ñëw pour nekk serviteur sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. wax na mooy kat mhm. jaamub yàlla waaye dama ñëw pour nekk serviteur sayiduna muhammad kon wax na mission moom lan la. waaye wax na moom mooy kan maanaam loolu rek portrait la. abdalillahi wa xadiman li rasulihi Sëriñ Tuubaa dina portrait ci ci ci bayit boobu. baatu abdu ku ne xam na ni baat bu bu am solo la même yonent yi yàlla am na ci faxo buy wax ak ñoom baatu abdu lay jëfandikoo. Hmm. subhaanalladi asra bi abdihi Sëriñ Tuubaa wane ni man jaamub yàlla la. Hmm. jaamub yàlla la lillaahi jaamuma kenn ku dul yàlla. waaye nag kenn rek lay liggéeyal muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tubaa benn bayit a ngi noonu ñaareel bayit mu wax bayit bu am solo boo xam ni dafa jar di fàttali mu ni lil na nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul garraau wa inni ahmadu mu ne man sëriñ tubaa benn mission rek laa am benn mission mooy damaa ñëw pour beesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damaa ñëw pour tajdiid tajdiid mooy beesal parce que yonent amatul laa nabiya baada ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa kon wàllu yi buñ ñëwee liñ man mooy beesal njàngalem yonent bi moo tax Sëriñ Tubaa nii yu jaddidu sunnatahul garra wa inni ahmadu waaye man Cheikh Ahmad Bamba mooy Ahmadu Ahmadu mooy Ahmadul Qadim kon ñaari bayit yooyu bu ko jëlee rek xam nañ kan mooy Cheikh Ahmad Bamba ak lan moo doon mission kon dañ ciy déggee ni képp ku nekk ci beesal sunna si yonent bi ak foo mën a nekk mhm. njabootu Serigne Touba nga ak foo mën a bokk déggoo fa tarixa Serigne Touba li mu fi wax déggoo fi waxi tarix mhm. foo mu leer parce que boo gisee mag ñi dañu bind bàyyi fii parce que dañ doon bañ ñu falsifier seeni wax mu ni kon képp kuy beesal sunna si yonent bi foo mën a bokk njabootu Serigne Touba nga foo mu leer waaye képp kuy màbb sunna si yonent bi foo mën a nekk yow yaay ennemi Serigne Touba numéro un. Hmm. parce que Serigne Touba dafa ñëwoon pour beesal sunna si yonent bi loolu mu leer. ma benn parenthèse hmm. comme wax nga loolu hmm. euh, message am yëpp boo liiree da ngay gis ne euh, jullit yëpp lay adressé wul maanaam amul benn identité ci wàllu tarixa waaw donc lu waral tarixa yi ci benn parenthèse rek balaa ñuy ñëwaat ci waxtaan bi waaw xam nga Cheikh Ahmad Bamba dafa donn daara joo xam ni daaray xam-xam la mhm. donn ko ci baayam boo xam ni boroom xam-xam la woon di Mamor Anta Sali Mbakke mhm. Sëriñ Tuubaa bi mu donnee daara ji matière yëpp doon nañ ko fa jàngale waaye bi mu bi mu demee ba bëgg a daara ji mhm. wuutu baayam dani képp koo xam ne jàng charia kese kese moo la taxoon a jóg ah bu la neexee nga toog fi jàng sharia waaye ko am leneen muy tasawuf sharia tamit day dugg ci biir tasawuf parce que l'islam ñetti ponk yi la al iman wal islam wal ihsan mm-hmm. mooy dëgg mooy nag dafa doon dund al iman mm-hmm. di dund al islam waaye di dund al ihsan ihsan na ko yonent bi taarifee ñun ñëpp xam nañ ko mooy an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ngay jaamu yàlla ba mel ni yàlla mu ngi lay gis bu la leereen yàlla gisula it nga bàyyi xel ni yow yaay maanaam boo mënta gis yàlla wéral ni yàlla mu ngi lay gis xam nga ki àgg ci martaba boobu dootul caaxaan Sëriñ Tuubaa ci martaba boobu la nekkoon di martaba di dund dugg dëgg sufiyanke moo tax bi doon nee daara ji mu daal di teg xam Sëriñ tubaa xam-xam la teg ndax téeréem yi mu fi bàyyi ay tazawadu sigaar yóbbalu ndaw ñi tazawadu shubaan ay ju téere yooyu boo ci demee charia la fay jàngale kon Cheikh Ahmad Bamba pour li ma la wax ni la dundam yëpp ci charia la ko teg dundam yëpp ci sunna la ko teg te loolu mu nekk ci Ahmad Bamba moo valable ci Cheikh Omar moo valable ci Cheikh Seydi Hadji Malick léegi nag keneen koo xam ne yow ber nga saw yoon nekk ci leneen yaa ci nekk mais Serigne Touba nekkuloowu la ci ni ki nit ñi taxaw ni ay jullit lañ di ko déclarer ci seen làmmiñ te dunduñu ko waxuñu ko Sëriñ dafa bind jëf nit ñi gis dañ naan dafa jëf nit ñi gis mu bind bàyyi fi wax ñu dégg kon loolu moo doon mission waaye li indi màggal gi ci ci laa bëgg ñu ñëw ci parce que Cheikh Ahmad Bamba bind na sababu tukkeem bi lu ko waraloon cause bi lan la woon sabab yi parce que lu yëngu lu ne am na lu ko yëngal moo tax Sëriñ Tubaa ni sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha mu ni waan akuuna shaafi an lil mi waaye waan akuuna xaadiman lil daw mi loolu mooy lan mu ni sama sababu tukki bi de lenn rek ko waral mooy damay dem pour sauver sama peuple foofu laa bëgg ñu taxaw fa hmm. damay dem pour sauver sama peuple waxul damay dem pour sauver murit yi waxul ni damay dem pour sauver waa Mbàkke wala waa Mbusoobe wala waa Bawal mais dani damay dem pour sauver sama peuple peuple bi kan moo ci génn baatu xawmu ñi jàng arab xam nañ ko alquran indi na xaw xawmu nuux xawmu luut xaw xawmu aad mu mooy peuple kon képp ku nekk ci peuple bi yow Serigne tubaal li ko taxoon a dem ci géej gi mooy dafa demoon pour sauver la yow mais lan moo taxoon Serigne Touba dem loolu ci la loolu moo mooy waxtaan wi. mooy injustice bu buñ ko tegoon moom tubaab bi fi nekkoon tegoon ko ko pour not ko notaale réew mi sëriñ Touba bañ. moo tax damay wax ni képp ku ni yow njabootu sëriñ Touba nga moo xam ci deret walla njabootam nga ci ruux li war a nekk sa mission numéro un. mooy xeex injustice. parce que Serigne Touba xeex injustice. moo tax ñu teg ko coono bi ñu ko teg ba mu am ci ndam li mu ci am tey te dinaa ci ñëw parce que bu ko neexoon rek toog def ni ñëpp def wala ñu bari ni def donte moom xamoon na ni dem bi ci lay amee ndamam li parce que wax na ni xarajtu yawmu sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar mhm. génn nañ ma bisub samedi ci fukki fan ak juróom ñett waaye sababu génn bi lenn rek la ndax tubaab bi bi mu koy yóbbu moom dafa jàppoon day dem pour sànk ko waaye sëriñ bi moom xamoon na ni pour mu am ndam li mën a nekk mar am xaa martaba xaadimu rasul bi muy wut il faut mu dem mu dem waaye li tax mu dem mooy injustice bu ñu ko tegoon kon képp koo xam ni koo xam ni yow danga nga ni sëriñ Tuubaa mooy moom nga yaakaar benn muy sa sëriñ wala nga bokk ak moom ci deret foo gis injustice sa bakkan la la war a jar waaye sëriñ Touba li ma bëgg a wax rek mooy dafa demoon pour sauver peuple am waaye gis nga ku ne xam na ni tukki bi daj na ci ay coono yu bëree bari yu méttee metti koroog sëñ Moussa Ka wax na ko boo dégloo ñaari rakkay ndakaaru ba dégg la mbër ma wax nga waaru koroog Serigne Touba bi ñu koy jëlee ndar di ko indi fii ci ñaari rakkay ndakaaru ci koor la nekk tubaab bi jël ko teg ko ci bato bi te booba gis sëñ Abdou Lahad wax na ni booba gisul kenn ku ko jàppal wëliisam menn moom képp la yaa ngi dégg coono yim ci daj yëpp ak lam ca daj Conakry ak fañ ko jaarale maa yombe pour résumer ba mu dellusee bi muy dellusi li mu waxaat dafa am solo ñu war cee taxaw rawatina ci jamono ji ñu nekk mu ni ijaal rujuu'i ila xawmi waaye naan saadatuna sama dellusi bi sama dellusi bi mën Serigne tubaa ci tukki bi. Hmm. malgré li ma ci daj ci ay coona ak xat-xat yi yëpp yàlla na nekk xéewal pour sama peuple foofu li tax ma ciy wax mooy kon ñu xam ne Serigne Touba peuple bi moo ko taxoon a jóg. Hmm. xeetu politique la doon def maanaam. politique bi gën ci politique yi. mooy bi yonent bi doon def. mooy sauver peuple bi. Hmm. parce que Serigne Touba buñ jàng ci moom nii bu ñu waxee ñu yuuxu loolu am na solo. waaye nañu jàng doctrine am idéologie am maanaam kon continue injustice bi mu doon xeex mhm. mu jaral ko bakkanam ba mu tey ba ba jëlee ko ci njabootam mhm. exile ko mu continuer taxaw di ko xeex loolu mooy li ëpp solo ci njàngale ak pas-pas bi mu amoon ak yitte ju rëy ji mu amoon himma ji tey tubaab boobu doon ko def loolu tey li ëpp ci ñoom ñu ngi wëlbatiku topp ci njabootam di leen raamal loolu liñ ci war a jàngee mooy dëgg mooy mujj point com le roi de l'information en temps réel suivez-nous sur YouTube Facebook et Instagram téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store